siobati.com et siobati. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur Lutte TV point com ñoo leen di nuyu bu baax baax di leen jaajëfal tey vendredi 28 août 2020 ñu indiwaatal leen seen xibaaru revue de presse ma ci ànd ak Bouko Ndour borom sañse bu yaaññi bu xëñ neex bi. Amina Ndiaye maa ngi lay fay di nuyu di la di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internet Lutte TV sañse bi nag sama tata moo fi jaar Daba Ngom rek Serigne Abou Ndiaye moo noonu la demee yal na jàmmam yàgg ba tax na dañ koy daal di ubbee rek ak journalu suñu làmb mu daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk départu Alioune Sarr bi nga xamante ni officiel na dat rek lay xaar waaye nag journal bi dafa mel ni mi ngi laajte ñan ñoo ko war a a utu euh, ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci biir commission bu CNG ku ci mel ni Mouhamed Ndao Tyson fësal nañ ko fësal nañ Yékini fësal nga xamante ni te ñoom la journal bi xëy fësal ku si nekk jaar nga si làmb takkoon nga ngem bàyyi làmb ñu intégré ñu intégré woon la CNG Amina Ndiaye ngir maanaam avancement làmb waaye ngir maanaam intérêt wu mbër yi sax surtout laa koy waxee moo gënoon tax ñu dugaloo leen fa gars nag ñu ngi doon casque ne surtout mbër yi ñu ngi doon casque ne gisuñu seen bopp si dugal bi ñu dugal ñu biir CNG est-ce que gars gën a gis seen bopp su fekkee ne kenn si ñeent ñi lañ teg si njiital CNG Amina Ndiaye nañ yoon yàgg waaye en tout cas journal bi daal mooy samplaaj ba xam kan a war a mun a wuutu Alioune Sarr si ñeent ñii en tout cas lu ci mënti am daal ñu ci bari ñoo ngi naan ancien lutteur wala euh, koo xamante ni miin na làmb moom moo war a mën a jiite CNG. waaw Amina Ndiaye moo war a mën a jiite CNG wala tamit maanaam ku xam yoon rek di dund yoon teg ko si yoon yaakaar naa tamit war na mën a gérer CNG parce que CNG Alioune Sarr jiite na ko lu ëpp ñaar ñeen lu ëpp ñaar fukki at Amina Ndiaye te maanaam mosul bëre mais xëy na maanaam yàgg a dund làmb xam làmb. tax na mu bokkoon si li ko si li taxoon mu jiite làmb ji nag ñoo xamante ne gis nañ si moom ay ñi ñu bëri jàpp nañu Alioune Sarr da daan jël décision active maanaam da doon jël décision te du tàgg kenn da daan te bu ñu ko ña ñi ñi ñaane du bàyyi yeneen ak yeneen xool daawul xool intérêt bëri loolu gën a tax ñu bëri tamit xëy na doon ko duut baaraam rek pour bëgg mu bàyyi waaye li leer ba leer mooy ko ne keneen kuy ñëw tamit Amina Ndiaye maanaam foo mu am esprit d'écoute di mën a déglu ñëpp parce que nag perfection yaakaar naa amul fenn te yàlla mi ñu sàkk ay décision yi muy jël mais nag képp ku nar a ñi xool intérêt wu làmb intérêt wu làmb xool intérêt promoteur yi parce que yaakaar naa ñoom ñoo gën a sonn ci làmb Amina Ndiaye. est bu ñu jëlee ku ci mel ni Mouhamed Ndao Saydane nekkoon vice président chargé de la lutte avec frappe est dajale na qualité yi pour mën a nekk président CNG. waaw Amina Ndiaye Mouhamed Ndao Saydane maanaam qualité yëpp moom kenn mënu ko dajale parce que ku nekk maanaam da faw faa mu am lu la waaye xëy nit ñi yaakaar lañ mën a am ci moom rek moom Mouhamed xëy na yaakaar la ñu mën a am ci moom que ne en tant que euh, esprit leadership bu mu yor en tant que maanaam esprit euh, de d'innovation bi mu yor Amina Ndiaye parce que bokk na si si si mbër yi njëkk a yóbbu maanaam kasu làmb ci ay millions yi million xëy na nit ñi dinañ am ci moom yaakaar njortu bu rafet que ne bu ñu ko joxee dina mën a manager CNG bi ba maanaam mu jëm ci kanam a kanam. en tout cas ñi ñu teg seen yaakaar bari na ku ci mel ni Yékini moo ngi ci Tapha ak Boy Kayre waaye ba tey ci biir journal suñu làmb buñ ci daal di descendre ak yénn daal dinay fësal ci xëtam gu njëkk ki nga xamante ni moom moo di euh, guy gi guy gi nag combat am ak rëg-rëg dafa mel ni combat royal ndax ampleur bi mu am ndax ampleur bi mu am Amina Ndiaye moo tax journal bi di samp laaj rek di laaj guy gi diggante Arsenal mystique force herculéenne mu war a samp Amina Ndiaye ngir ki nga xamante nii tey moom moo di rëg-rëg Amina en tout cas il faut mu am ay cummukaay lu ñuy woowee impressionnant arsenal mystique bi nga xamante ni am na ko war na cee a bokk mu taxaw mystiquement pour mën a attaquer rëg-rëg ndax ci fàttaliku rëg-rëg a na si li nga xamante a mun a a war na see mën a taxaw ngir combat bi mu jëm digganteem ak rëg-rëg waaye ak lu sa arsenal mystique baax baax baax baax baax sa sa physique bu solide rek dafa mel ni doo mën a attaquer rek rek. waaw jàpp na ne rek rek moom Amina Ndiaye physique am moom macha allah moo tax journal bi jàpp na ne guy gi war na mën a physique bu baax a baax am doole am kattan parce gis na fi mu jàll ak ay ponkal ay poids kon yaakaar naa ne guy gi moom li koy xaar ci rek rek xam na ko moo tax journal bi jàpp ne. doole war na ko wut war naa war a wut doole ju bëree bëree bëri bëri. Euh, ginnaaw arsenal physique bi ñë bi nga xamante ni wax nañ ko affaire mystique bi waaye tamit dafay laaj ci moom guy gi mu indaale xeex bu méttee méttee méttee. indaale xeex parce ñu bëri dañ jàppoon ne mbëru mbapat la waaye gis nañ que ne wane na boppam ci ay xeex ni combat mag prise de mer rek yeneen ak yeneen combat yoo xamante wane que ne wane na ne xeex moom na ko moo tax journal bi jàpp ne moom guy gi Amina Ndiaye na dem jàngi xeex parce que bëri door lañ wax bëre d'or la ñu wax waaye ba tey ci biir journalu suñu làmb mi ngi fa fësal ki nga xamante ni moom moo di Doudou Diagne Diécko mu daal di yëkkati ay kàddoom rek di wax ci ki nga xamante ni moom moo di Alioune Sarr. waaw ci ki nga xamante ni moo di Alioune Sarr Amina Ndiaye wax na ne Alioune moom nee nañ ne maanaam mu ngi rendre compte ki nga xamante ni moo di ministre bi waaye moom Doudou Diagne Diécko li mu jàpp mooy que ne Alioune moom maanaam membre membre làmb. wala njabootu làmb ñoom la war a rendre compte ñoom la war a ñoom la war a xamal que ne maanaam bilan lii la def lii la fi liggéey lii ak lii la fi bàyyi lii la fi fekkoon moom du jànjee ko nag jëkkati na ay kàddu di ko jëmale ki nga xamante ni moo di Alioune Sarr

Euh, jàpp na ni euh, président CNG bi nga xamante ni moom mooy uutu Alioune Sarr war naa mën a nekk au moins benn yoon roi des arènes. waaw war war naa mën a régulariser lu li nga xamante ne moo di roi des arènes mooy ko xam nga ñi am na ñu naan ne roi des arènes am na ñi naan amul ñi naan reconnaître nañ ko wala reconnaître nañ ko moo tax mu bëgg ñu ñu régulariser benn yoon loolu noonu xam que ne kii moo nar a doon roi des arènes ki que maanaam euh, avantage yi la nar a am lii ak lii faveur la nar am loolu xëy na loolu yëpp bokk na si li nga xamante ni moo di ay bëgg-bëggam na Ndiaye. ginnaaw bu nekkee roi des arènes ba pare bëgg nañu tamit mu nekk champion en lutte olympique. waaw bëgg nañ tamit mu nekk maanaam ñuy organiser champion lutte lutte olympique parce que gis nañ ne dafa xaw a manqué jamono jii nii depuis depuis depuis ay at a ngi nii maanaam nit ñi dañ ko dañ ko te pourtant nekk na compétition boo xamante ni tey maanaam day daw au si bokk wala gën si ràññee seen bopp Amina Ndiaye critères yi nga xamante ni Doudou Diagne euh, Diécko yëkkati na ko ci ay kàddoom lépp ngir préparer rek li nga xamante ni moom moo di présidence wu CNG waaye ba tey ci biir journalu record comme ni ngeen ko gisee rek saison ki nga xamante ni moom moo moo di ministre Matar Ba loolu am loolu journal bi xëy fasal Amina Ndiaye si bu njëkk ko rek que ne Alioune moom jël na rapport am rek jób jébal ko ki nga xamante tey moo di Matar Ba rapport bi nag xëy na dinañ xaarandi lii li li na ci biir ba xam ndax dinañ ko publier nit ñi xam lii CNG bi liggéey si si si maanaam lu ëpp ñeent fukki at yi nga xamante ni ñaar fukki at yi nga xamante ne Amina Ndiaye jiite nañ ko CNG bi waaye Pape Thialis Faye mi nga xamante ni moo taxawaloon combat Boy Niang ak Tapha Tine finalisé nañ ko ba li nga xamante ni daal moom moo di avance sur kase yi daal di nay teew waaw avance sur kase desoon sur reliquat avance yi Amina Ndiaye jot ko manager yi jot ko moo tax tey journal bi yaa ngi gis nataal bi ki nga xamante ni moo di Pape Thialis Faye ak Bourkhane Wade nekk manageru Boy Niang ne nag ña ngay wala ña ngay xaatim ay combat lu lu lu woone kan ñaari ñaari camps yi Amina ñu si nekk maanaam jot nañ seen seen seen xaalis ki nga xamante ni moom moo di Pape Demba ba nekk président des supporters de Fass mi ngi yëkkati ay kàddoom ginnaaw ba journal suñu làmb tiitaree démb ni kii nii di Gris Bordeaux dafa zappé Tafa Gueye ci kombaam ak Balla Gueye yëkkati na ci ay kàddoom yëkkati na ci ay kàddu Amina Ndiaye moom ki nga xamante moo di Pape Demba ba nekk président supporteru Fass yi yëpp moom nag mu ngi yëkkati ay kàddu di dalal xelu supporters yi di dalal xelu amateurs yi waaye xamante ni Amina di leen xamal que ni Gris moom du def dara lu ump Moustapha Gueye kon nag nañu ñi dalal seen xel côté boobu noonu Amina Ndiaye. noonu la demee waaye écurie bi nga xamante ni moom mooy écurie Kër Massala Mboro dafa mel ni daal dañoo noyyi yow ndax 12 victoire la ñuy am Amina Ndiaye nekk loo xamante ni Amina Ndiaye lu xaw a xaw a doy doy waar la si écurie bu toll noonu daaw nag amoon nañ performance bu baax a baax a baax waaye ren moom dafa mel ni seen mbir dafa xaw a dafa xaw a taggatémbe moo tax Amina Ndiaye dafa mel ni ki nga xamante moo di seen directeur technique am na seen directeur technique Babacar Gueye yëkkati ci ay kàddu lu wax ni obtenir 27 combats déjà loolu rek lu baax la. waaw obtenir 27 combats loolu déjà lu baax la moom Babacar Gueye loolu la wax yaakaar naa ne loolu tamit na Ndiaye dañ koy saluer rek di ci féliciter parce que loolu bokk na ci liy doxal écrit li si des nag yaakaar naa ne. ci booy yi la ci xale yi kon nañ yokk cere doolu neex yokku ci la ñuy daal di jàllee ci journalu record mu daal di fësal ci xëtam gu njëkk Balla gay 2 samp ab laaj ba xam Balla Gaye ak papam Double Less kan moo daakoon a bëre ñu ci bëri yëkkati na ci seen ay euh, kàddu di joxe seen ay xalaat euh, ku ci mel ni Basirou Basirou euh, Ba bu nekk président des amateurs de lutte yëkkati ci kàddu waaw Amina Ndiaye Balla moom la journal bi di samp laaj ñoom ñaar ku dàq bëri wala kii la meilleur technique si si maanaam si diggante parcours distinction ak li nga xamante ni Amina moo di moo di moo di moo di technicité parce que yaakaar naa ñaar ñoom ñaar ku ne am nga foo jaar ku ne tamit ku ne xam na ne ñoom ñaar ay technicien lañ waaye ku nekk tamit am na Ndiaye am na ay distinction am na loo am ci loo am ci ci làmb muy ay raay yu ne yeneen yu ni mel ba tax ne ki nga xamante ni tey moo di nekk président des managers de lutte Amina jàpp na ne différence bu Balla Gaye ak papam na ne Balla Gaye lépp a may bëre gaa poids a may njool la woon boo xamante ni Amina Ndiaye dafa amoon doole bu la jàppaan ba dëgër ba si bu la xasoon ba ceinture la moom pare nga foo mën ti def dalay dalay yëkkati daan la jàpp na ne Balla Gaye tamit Amina Ndiaye nekk na ko xamante ni Amina Ndiaye euh, poids lourd bu gaaw waaye nekk roi des arènes teel ko nekk teel a nekk roi des arènes euh, jàpp na xëy na loolu moo nekk lim lim avantagé kii di papam dàq ko bari ëpp ko technique waaye jàpp na ne Double Less moom Amina Ndiaye champion la boo xamante ni Amina Ndiaye nekk na cinquième au niveau mondial si lutte olympique en plus. lan la ci Paa Ñoxobaay micro central de l'arène wax. waaw Paa Ñoxobaay moom jàpp na ne Balla Gaye moom moo dàq bëre papam jàpp na ne Double Less moom balaa ko dàq bëre mon père Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi borom ayca ayca ayca wala yàgg na yàgg na yàgg na tey nag moom mooy xamal que ne Balla Gaye am na ay qualité bëri yoo xamante ak yeneen na ne xëy a moom moom mu dàq bëri si maanaam si cadre technique cadre technique yoo xamante ne day bëri lii day bëri lay day bëri lay comme ni ko père Ibou Ndiaye ñoo ko waxee rek mais jàpp nag du bales moom côté côté côté maanaam distinction nekk na cinquième champion du monde si lutte olympique kon loolu jàpp na ne lu Double am la te Balla Gaye amoo ko jàpp na ne tamit Double Less euh, nekkoon na mbër boo xamante ni maanaam bu ah, daawul rate action loolu xëy na loolu bokk na si li tax mu jàpp ne Double Less moom champion la côté boobu noonu. ku ci mel ne Ngagne Ndiaye ñu chroniqueur u E-Media tamit yëkkati na ci ay kàddoom waaw jàpp na ne dubales moom Amina Ndiaye dóor mu daanu yu bëri woon na lool lool parce que nekkoon na mbër boo xamante ni loxo bi dafa diisoon comme dóoraan en général daan nga daanu waaye jàpp na ne Balla moom euh, poids lourd la mais poids lourd bu attan yaramam bu boo xamante ne dafa technique foo ko jàpp day bëri tax na mu ne ki nga xamante ni moo di Balla Gaye moo dàq bëri papam jàpp na nag dubales moo ko dàq palmarès wala moo ko gën palmarès Amina Ndiaye la demee le débat est ouvert ku ci nekk mën nga cee wax sa xalaat ba tax na nag ba tey ci biir journal record kon ni nga ko gisee rek daal dinay fësal euh, écurie euh, kaay baax euh, ci saison 2015 ak 2020 nag gis nañu am nañu lu toll ci 131 combats ci 5 ans. ci 5 ans Amina Ndiaye si xalima suñu grand suñu doyen Abou Ndour Amina ñu koy nuyu de passage rek mooy joxe résultat wu wala maanaam jaar-jaaru écurie kaay baax mi nga xamante depuis Amina Ndiaye ba jomm jamono ju ñu toll nii bëri lu wàllu loolu tolloog 131 combats en mu nekk nag exploit boo xamante ni tey coach Konaté xam la que ni tey secret bi mooy que ne dañ am ay bi mooy xamanteeg promoteur dañuy fexe seen booy di bëre xamanteeg manager itam ñuy def liggéey bu am solo tax na daal kaay baax écrit bi nga xamante ni fa la càkk fay nekk Amina Ndiaye bokk na si écrit yi ëpp ni seen booy dañuy tamit daal nañ koy fësal ci journal record waaw Ngel Dione Amina Ndiaye moom tamit mu mel ni daaw saison neexul parce que dafa amoon blessure waaye daal benn drapeau la am ñaari final am lu tolloog 1 million 400 mille Amina Ndiaye ñu koy naan rek na yokku cere dooli ñeex. na yokku tere dooli ñeex foofu lañ koy daal di rek ñun dafa mel ni xibaar yi foofu la yem tey jii ci àjjuma bi di leen jaajëfal yéen ñëpp te naan nag Bouka santal gërëm la. waaw di sant di gërëm ñëpp rek Amina Ndiaye bu ñu lumee du ñu mais képp kuy bëgg Lutte TV képp kuy bëgg Boucar ñoo leen bëgg di leen jaajëfal ñaan jàmm si Sénégal di yàlla fi jeex